bismillaahi ma jóg man sant lillaahi sangub jigéen ñi ci dun yaa jaaratullaahi bismillaahi ma jóg man sant lillaahi sangub jigéen ñi ci dun yaa jaaratullaahi ngir ñépp ñépp ko gàddul cant war di ko way booleeg siyaare kaña nal jaaratullaahi budul ko nag sunu maam Mariama. bokki jullit yi bokki taalu yi mag ak ndaw góor ak jigéen maa ngi leen sant maa ngi leen di nuyuta di leen sant di leen siyaare bu baax a baax di jiital ci cant gi nag sama nijaay Thierno njaay ak nijaay Ousseynou Loum nga xam ne ñooy suñu kilifa ñun fondation Gaïndé Mbar waaw ci seen waaw rek ci la ñuy wéy ci la ñuy xëy ci la ñuy gont ñu jiite ñu nag waaw teg ñu ci yoon wu jub. ñu di ci sant yalla bu baaxa baaxa baaxa baax di santaat yàlla nag gannaaw bi nga xamé ne dañ ñoo boole ci walu soxna jaar yeetu ñu ñew fi ci poroxaan tay di magal bisab soxna jaar bi. nga xam kenn ku ne tay bëgg nga am bis bu melni ñu di ci sant yalla bu baaxa baaxa baaxa baax delu wal dellu nak fekk suñu kilifa ci ëtt bi nga xam ni moy señ señ sañ sañ ñu bok ak mom siñi nak muy kilifa gu mat sekk kilifa ci ñun nak ñu doylo ko bu wër waxtu woo xamee ne ñëw nañ poroxaan dañ daan dal ci mbedd yi ak yeneen kër këraan yi waaye bi mu xamee ne ñun daayira gayna dañuy faral di màggal si ci la jokkoog suñu kilifa xamal ne leen bu ñu bu màggal gi jotatee na ngeen ñëw ca kër ga. ñëw nañ fi daaw lañ fi tàmbalee ñëw ñëw nañ fi ren waaye alhamdulilahi rabil alamin dañuy santaat yàlla bu baax a baax a baax rek ndax daaw bi ñuy accès dañoo tollu ci war a taale añ waaye sëñ bi dañoo xamal ne bàyyi leen añ yi xéewal yi da lijjanti nañ ko te sóoraale nañ len ci ñing ci xawm ñu am digalal tok nak, kero bi añi noppee dañu indil berne yu baaxa baaxa baax a añu allah ndox ak la ca wara and lepp and ca renit non la mel kon ñing koy ñaanal mom sëñ mourou Ablaye mbake mu yàgg fi lol te wir ñing koy ñaanal mu yàgg fi lol te wir lim sumbu ci kërëm gi naal ko ci kërëm gi moko xam yalla ko suñ borom dafa tañ ko ak mom ñuy sante yalla nak di contane ci bis bi bu baaxa baaxa baax ndax kat mbir mi li muy rëy rëy rëy jigéen la muy xaar euh, soxna jaar yétu waaw ñu di ci sant yàlla bu baax a baax a baax nag di jaar ci ay tànkam nag waaw njeextalam daal moom la ñu dabu si fii ci Porokhane tey ak suñu kilifa yi ñu àndat bu loolu jàllee maa ngi sant xale yi nga xam ne ñoo yor daayira bi nii ndax nëgën daaw kat maa ngi ci waañ wi daaw jéeg maa ngi ci waañ bi te ren alhamdulilahi rabil alamina nangu nañ ko ci suñuy loxo yoral ñu ko nag di ci def dafin wu rafet a rafet a rafet gis nga fi ñu toog nii suñ dara manqué wut lépp fii la ñu fekk lépp fii la ñu fekk daayira Dakar bi ñëw na daayira Gaynde bi ñëw na ñi dëkkee Touba ñëw nañ kenn ku nekk rek noo mën a jàppee ak fa nga mën a jàppee rek jàpp nga fa kon ñu ngi di ñaanal di leen sant suñ borom yokku leen bañ xam ne yokku nañ ci dara ci soxna jaare bu som yi nga xam ne moom lañ dabu si fii waaw ki nga xam ne daayira mm, mm, mm, góor ñi nijaay Thierno Ndiaye nijaay Ousseynou Loum ñi ngi nii toog ñooy suñu kilifa daayira jigéen ñi yaa ummi sama yumpaañ ak ñeneen ñi ci seen gannaaw ñoom ñëpp ñu ngi nii toog daayira góor yi mataar Gueye moo ko yore woon waaye dafa am ngant mi mi ngi dakaar moo ko teree ñëw ñu di ci sant yàlla nag bu baax a baax a baax a baax rek te di leen ñaanal nag di sàkku ci sëñ Modou ablaay mi nga xam ne moom moom ëtt bii tey mu defal ñu pas fasal ñu ñuy gën a mën a takku gën a engagé liggéey bi gën a jëfal soxna jaara ndax kat gisuñ fi mooy jëfal soxna jaara ndax lépp moom la waaw ba kenn liggéeyut ku ne ñëpp toog soxna jaara moo liggéey ba am mu am tey kon ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla suñ borom yokk ay leeram moom soxna Jaariyatu te taas ci barke ñu taas ci barkeem ñoom ñun ñëpp rek waaw ñu ngi sante yàlla bu baax a baax a baax di sant yàlla di am mbégte bu baax a baax a baax nag di ñaanal ñëpp jàmm ji ànd ak tawféex sëñ Modou Ablaye yàlla na fi yàgg te wér ñi ne ci ginnaawam yàlla nañ fi yàgg te wér di sant nag waa juróom wee nga xam ne moo nga nee ca roon garab ga kenn du moom waaw moo jëfoon moom itam ba kenn jëfagut ba di taxaw tey kon ñu ngi koy ñaanal gudd fan gu ànd ak wér moom soxna si fee mu toog yàlla ko ko suñ borom dafal maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. di sant yàlla di sant sëñ a Ablaye ndax bañ fi ñëwee daaw ba ren manqué wuñ dara manqué wuñ lekk manqué wuñ naan manqué wuñum ndox di ko sant yal na yàlla wéral ay cëram guddalu fanam ñu yàgg ko fee fekk balla ay sa buri ñu ngi koy ñaanal yàlla yal na yàlla wéral ay cëram yàgg ko fee fekk daayira bi nag wax dëgg yàlla moom am nañ takku. waa Gaynde Mbaar am nañ jom am nañ ngor ku leen boor rek xam ne am nañ jom am nañ ngor leen sant nag gone yi nga xam ne ñoo jiite daayira bi ummi bajaa nag ñoom gone yu ndaw yëpp maa ngi leen di sant dama leen ku lim juum maa ngi leen di sant di leen gërëm am nañ yar am nañu teggin sonn nañ yal na leen yàlla fay ak soxna jaara maa ngi leen koy ñaanal. soxna jaara soo wootee ñu wusi la heure boo leen wooyee ñu wusi la heure boo leen wooyee ci soxna jaara ñu wusi la. dawuñ tàyyiwuñ ma ne ko dawuñ tàyyiwuñ di sant yaay maam Faati Kebe nga xam ne mooy waajuru sëñ Modou ñu ngi koy sant di ko gërëm lépp moo ma moo ni booleeg sañ Modou ñu bokk si ñi moo ñu booleeg moom. asalaamaaleykum maa ngi ne ñëpp di leen siyaar di sant itam nag rek yéen ñi nga xam ne yéen a ngi taxawit bëgg a jël suñu wax jii di ko yóbbu ci rajo daal ñu ngi leen di sant yéen di leen gërëm. ñu ngi sant sëñ Modou Ablaye mi nga xam waral babor, mi nga xam ne moo ñu fi andi di ñu bëgg a jéem suñu ci ak suñu ñaan ñu di ko jéem a nangu ci moom ak yaayam mi nga xam ne moo yoon wi itam moom it ngi ko ciy sant di ko gërëm di gërëm ñi nga xam ne ñoom it ñoo nekk ca seen waañ wee nga xam ne ñoom it dañoo ànd pasteefu rek daaw dañoo bëgg taal añ ñu ne bu leen taal ñu këpp suñu añ taaluñu togg reer ay reer te du ñu andil ñu añ ñu añ ba suur andil ñu kafe ñu naan ren jii biñu egsee fas yéene taal suñu xale yi bëgg a futteeku taal dañoo wax ne ñu bu leen taal añ baa ngi ñëw ñu tëdd taaluñ dara ñu ni tamit añ bi macha allah dañoo andil añ ñu aña aña añ ba suur macha allah ñu sant leen loolu nag gërëm leen ci rek nag